jëm ko tu baaraam wala mu taj waay. yow mii yow nga ne mosoo def lu baax rek. yow yaa ngi lay la xëy na la sama yow bul tiit bu ragal jël naa bi ah man man engagé ñaari yoon bu may ñàkk sama bakkan fonk la may

noonu naa ni noonu naa ni eh, li nga suul. Eh, eh, lu waay mën na ko def. la nga bëj ak kii aw aw ba kii kan la. yow yow yow wax kan yow. damaa gis muy sinap. mu ñëw waaw. sinap la def. mu ñëw ko. bu bu bu bu nu sinap de. walaay dara ko sinap yow. mu ñëw ko rek. dama ne dama ne. te toog waaye dugal wuy ma. puusal bul dugg foofu. Ah, dugal bul dugal noonu wuy ma. ak bul dugg foofu waaw ah, waaw bul dugg foofu bul dugg foofu. njëkk ci waay waay la nga bëgg. waay la nga bëgg. ne ah, leen bis bi rek. ah bisimilah yëpp ku nekk na ko respecté. sa bëgg baax yow ba ñu umee ba tey mosoo woor. yow demal toog yow moom ñu pala tànn. ñàkk ko tàmm wóorul de. ma toog ah. la nga bëgg. eh ah. baax na na ni. yaay la xëy na laa. nee naa leen lu waay mën na def. Eh, man man man lekk leen. waxoon naa leen ko de. doo leen lekk. ayca leen. waxoon naa leen ko de. ku bëgg jàmm bu mu jug fu mu toog toog leen. service leen ngeen delluwaat seen produit ngeen lekk ndànk ndànk ngeen continuer seen waxtaan bu mel ne damaa disparaître benn forf kenn ngeen sëggaat ngeen continuer seen lekk ndànk ndànk. man damaa suuf. sawaay sawaay continuer sa lekk bi ngeen continuer seen lekk doucement doman doman. doucement fan la. dama laay waxal bëgguma am ak kenn benn problème. tuur naa. lekkal. tuur naa tuur naa. aywa man dama lekk li yow aw ba. eh lekkal toogal nga lekk. xolo pour mu lekk. doonu ma doonu ma kenn. dama bëgg kenn ku ne xam ne na lekk na lekk xam nga nan la demee. eh eh tey nga lekk te moom nga lekk nan ko lekk. du ko le saxal boobu saxal bi du ko le. abataa saxal bi. Ah. dama eh eh eh, eh la ngeen boy boy dama ko waxtaane man damay petit camp léegi léegi eh, eh, damay petit camp Fafa ah! Fafa yow yaa ma yónni ma daw nga nga organisé li eh kaay ma toog organisateur ma ku ma a meloo damay li ñëpp waaw jàppaloo ak yow ñaan fa dugg rek fexal ma ñaan ko baa ngi na de kéem a organisé programme yow yaa ma yaa ma jox ne naa ko togg eh maa fokk noo fi loolu lekk ngeen noppi tamit nag. Fadou eh. ah Fatas kër jël ci bëccëg gii. jël naa bëgg ñaf ci kaan yi. kaan yi bu jël ñànk tàng. ñànk tàng. jël diwtiir leen bi. diwtiir leen bi. suul bi mu dugal. si xalaal kii. kanti eh. ñaan ko danga bi di sa gémmiñ gi bu ma bu ma bu ma bu ma mooy sa gémmiñ gi di dégg gi li muy wax lekkal rek noppi ñaanal ñaanal ayca lekkal sañal sañal ayca ayca war na def tubal war a xam fay bu ma xool fa sax ko jëlee rek ay waay ay waay eh, yow bul wax dégg nga damay fatigant sama yi footballu ko ma damay fatigant entraînement nii def ko ma dara. dëgg naa yéen mën ngeen di mën ngeen di jëw. dëgg naa sa papa moo ma jox dépense mu ne naa ko togg. léegi lañ ko taaj léegi lañ ko taaj aywa aywa. sa papa moo ma jox dépense mu ne naa ko togg. waaw man juguma ba xam nga lan maa ngi resté sur place. booy toog leen. maa ngi resté sur place waaw ñaan baal ñu. dégg nga bëri bëri fu mu toll nii. kaayoo kaay. gën a kaay. def leen def leen lan lan. ah eh jóg leen. waaw jóg nañ daf leen lan lan lan ma yëkkati bool. waaw daf leen kii xam nga fan la cuune. sa waay eh, eh. mu cuune. dafa tànku ndox daal. daf leen lan toppal ci naan lan lan. papa. Euh. kaay ji maa mujjee eh, man maa mujjee de maa njëkk a dem si. sa waay bu leen mën day foto teg leen ci sama xol fii. voilà dama voilà dama ah déedéet yow yaa yaa nu mag ñun ñëpp. na góor jiitu jigéen topp ji. moom mi moo ñoo la woo taw Paa Duggule topp kii Paa Duggule topp booy yow laa topp bi ah. waaw topp eh eh Baye toppati ko eh Baye Baye taxaw yow topp bi yow mii yow borom lopp bi yow topp man booy bee laa choisir man maa ji waaw yow damay damay fonto mënoo tëj sa làmb ah. bi ba noppi brasse xam nga topp waaw ñaan sa papa moo ko organisé ba pare moo yaa fenn na yow yaa eh, eh, organisatrice bi yow. bu eh, ngeen naa noppi rek mu gën si ñu may ko nag.

Lamungu. Lamungu. Lamungu. Dugule lamal. Dugule. Eh, eh. Waram tambal leg. Ah? Sama gene kenn tambal. Ba kay taxaw fi nga tambal. Sa saso, papa saso. Atta Sassou. King Kees. ku njëkk a ñëw doo ko dóor ku njëkk a ñëw doo ko dóor ku njëkk a ñëw doo ko dóor. King Kees c'est premier. Kalka Sam naan. waaw baal baal naa la dama baal naa la baal naa la dama dama eh may leen. King Kees c'est premier. dama dama dama par kii kii ñëw nga. dama dama King Kees c'est premier. dama dama King Kees c'est premier. pin piisam rën. man fii lay rën. Eh, pin piisam rën. pin piisam rën. pin piisam nii. pin piisam si benn maa laa soxla ñaa ngi koy. pin piisam rën. laabal laabal waaw baal ma ngi lay wa laabal. pin piisam rën. laabal def laabal laabal def wayu nii de wayu nii de wayu nii de wayu nga sa jëm bopp mooy demal baal naa leen dem leen mooy dem leen pii sam rëm yéen du leen ci dara dem leen rëm pii bu leen ma daw dem leen ngeen ngeen dem seen yoon musoo bokk sa ci taasu bi pin pii sam rëm waaye pin pii sam rëm pin pii sam rëm pin pii sam rëm pin pii sam rëm pin pii sam rëm pin pii sam rëm Pin pi sembrën. Kilimbak kilimbak. Pin pi sembrën. Kilimbak kilimbak. Pin pi sembrën. Kilimbak kilimbak. Pis pi sembrën. Kilimbak kilimbak. Pin pi sembrën. Kilimbak kilimbak. Aywa. Waaye ne woon toog na kilimbak. Waaye waaye na pi sembrën. Kilimbak kilimbak. Pin pi sembrën. Kilimbak pi sembrën. Kilimbak. Eh eh. Donc lay def ni. Pin pi sembrën. Pin pi sembrën. Kilimbak kilimbak. Kilimbak kilimbak. li muy jàpp doomu. kilim uraataaf taaka uraataaf taagin uraataaf taagin uraataaf taagin. kilim maa gën a mag kilim maa gën a mag. teel teel xool nga mu commencé ma teel teel sama xol bi gën a sedd ci kool yëpp waaye tey tey chef laa bu taxaw yàlla ma yéene chaque jour Thiès rek waaye papa yéeme yéeme waa nga dugg waaye mais lii seen loxo dalaw ah chef a neex. Yeah. Uh huh. Yeah. Nyango ni khair, nyango ni saga, nene dade, dinyo diwaga, anda ki gens, koko indaya, Nyango ni fe pa. Papa mlaja na nyango, yo kana kiso nyango, yo bo khamon nyanko.